Himmalata ya ma

asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi fii ci aéroport bi ci teewaayu Serigne basiru Mbacke moom Serigne Abdou Khader di wàcc si nii léegi ñu ànd ak mbokki taalibe yépp tey ji ñoo ngi nii ci aéroport bi taalibe yëpp a ngi fii fi ñu toll nii xanaa dañuy jël kenn rek laaj leen li war a teewaay bi bisimilah kon ñoo ngi fii ak mbokkum taalibe basiru Bassirou Diba ñu lay laaj. sa teewaay fii ci bis bi ci aéroport. bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, jëwri ñoo ngi lay delloo ziar bu baax waaw suñu teewaay fii de ci barab bi muy dañu am gan gu màgg gu sell muy sëriñ Basiru Abdul Xaadir eh, di ku màgg ci ñun ndax ku wax sëñ Basiru daanaka mooy yoonu murit yor kàddu yoon wi eh, dëgg yàlla war a seet si mbokki taalibe fii ci Touba Istanbul mu nekk mbégte lool ci taalibe yëpp nekk mbégte ci julli yi fi nekk yëpp moom la ñuy xaar nii mu génn saafante mbokki taalibe yi euh, di xaar daal incha allahu ak yeneen i jotaay ak moom ngir lu jëm ci mbokki taalibe liggéey bi ak dëkk bi ak doxinu yàlla loolu daal yaakaar naa mooy tànkam tey ñu mooy suñu tànk fii ngir gàttandu ko di ko dalal jàmm ci dëkk bi wasalaamaaleykum. sëriñ Serigne Bassirou Diba kàddu yi am na solo matala na. ñu jox jëriñ Baye Ansou bisimilah ci teewaay bi fii ci aéroport ngir teeru sëriñ basiru Mbacke. waaw asalaamaaleykum sama mbokki ñëpp. di nuyu ñëpp teewaay bi moom am kilifa bu mag boo xamante ne suñu kilifa la du suñu yaakaar e, tey moom moo fi seen Touba tey si dëkk bi muy sëñ Bass moom sëñ Abdou Khadir Mbacké moo tax ñu teew fii tey di ko teeru e, di si def suñu kemt kemtalaay kàttan di ñaan yàlla yàlla andi ko si jàmm ñu dalee ko si jàmm e, te sàkku ngërëm ci moom yal na ngërëm boobu yal na ko suñu borom wàcc si mbokk taalibe yëpp loolu moo waral teewaayu fii ñu ngi si sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax yéen yi yor xarala yi ñu leen di ziar bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Baye Ansu jëriñ kaddu yi am na solo kon dañuy jox jëriñ Massar mi jëriñu Cheikh Ahmed Tidiane Sarif fii ci dëkk bi di Istanbul ànd ak ñun liggéey bi bisimilah jëriñ Massar ñoo ngi lay ziar bu baax. ñu lay doon mbokk ci bu baax sa teewaay fii ci aéroport bi nga xanaa di sant yàlla rek. suñu tey diina ji moo xewle di lislaam ñun ñëpp bu ñu amee lu mel nii dañu mugul ñun ñëpp ànd ànd ak sunu baay sunu mbokk sunu xarit sunu soppee di bàyyi am liggéey xam ni ku mel ni ku defa ko fii ñëw jóge Sénégal sunu wareef rek mooy ñu taxaw dëggal ni lislaam rek moo ñu boole ñun ñëpp tey ndax Sénégal ni la mag ñu àndee bu ko defee rek lii moom sant yàlla te xéwal la bu fi ñëwee yàlla na ko yàlla xéwal lu bare bari topp rek defal ñaan ñun ñëpp yàlla defal ñu sutura lépp yokk si dëkk bi bu neexee yàlla wax dëgg yàlla am nañu baax bu baax a baax barki démb rek soppeem ba xaritam bi ñëw na fi sëñ Abib ñee lañu àndee kon nag bu ñëwee ñu àndaat nii rek mooy rafetal diine gi xam li ñu bokk moom mënuñu ko séddoo dañ ko rafetal rek jërëjëf mbokk jërëjëf jëwriñ Massar kàddu yi am na solo matale na kon sëriñ Abdou Khader Diouf ñu lay laaj rek sa teewaay fii ci aéroport di teertu sëriñ Basiru mbàkki moom sëriñ Abdou Khader ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di nuyu mboolem koo xam te ni teew na fii ci jataay bi waaw tons boo gisee jataay bi nii xam naa li ko waral mooy sëriñ Bassirou Abdou Khadir bi nga xam ni moom moo a ñëw gane si moom moo a ñëw gane si ñu ñu fajaru ñëw ci aéroport bi di ci sedd bi ñëw di ko teertu waaye nag jaral nañu lépp loolu soo gisee taxawaay bi ni mu rafetee jëwriñ Massar taxaw nii wax dëgg yàlla ñu bokk di ànd liggéey boobu léegi di xam ne lépp benn la rek daal wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom gan gi ñëw si jàmm ñibbi si waat si jàmm barke Seydou Khadim jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Abdou Khader ci kàddu yu am solo yu matala yi. woon sëriñ bi agsi na ci jàmm ma ngi nii di waaj a génn ànd ak délégation bu mag monsieur le ambassadeur son excellence Cheikh Gueye ngi noonu ànd ak moom ci biir ak jëruñ sëriñ Massar jëruñu Tidiane yi ñëw ànd ak délégation bu mag ba grand Pape Demba ak ñëpp ñëw nañ rek kon ñoo ngi nii di xaar sëriñ bi mu génn ñu ànd ak moom gunge ko ba ca hôtel ba daal di yeewiku ngan gi nag ñoo ngi koy waajal alxames bii ñuy jëm si incha allahu rabi 4 dina dinañ tijji saal ba bëgg nañ mbokk mbokk yépp daje fa képp kuy wax asadu an laa ilaha illallah rek bis bi sa bisa ñu ganale ko ca saal ba sëriñ bi dina ñëw ànd ak délégation bu mag sëriñ Cheikh Ndigal Fall ñëw na léegi arrivé kon bis bi nan waaj nan ko waaj te xam ne bis bi moom sunu bis la mbokk yi sëriñ baa ngi noonu di agsi sëriñ Basiru Mbàkke agsi na sëriñ bi agsi na porte parole yoonu murit sëriñ Basiru Mbàkke agsi na ngi saafante ak jëwriñ Masaar ak jëwriñ sëriñ Amdi Gueye son excellence Cheikh Gueye ambassadeur teew na sëriñ bi ñëw na ànd ak délégation bu mag jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke marhaban bikum jërëjëf sëriñ Basiru samaam Seexul Xadim ba muy wàcc gamoog lambar naa mayomba gisul kenn ku ko teeru tey wàcc nga Istanbul ñëpp a ngi lay teeru Mbàkke yal na nga fi yàgg yal na nga àggale Sëriñ Basiru jërëjëf Mbàkke nan nuyoo ndànk-ndànk waaw nan ko nuyu mu gaaw jërëjëf Mbàkke xol yëpp sedd nan yal na nga fi yàgg Sëriñ Basiru li nga bëgg àggale yal na nga ko àggale ci barkeb Sëriñ Tuubaa Diouf waaw Sëñ Fallou Sëñ Fallou ndeysaan kon mbokki taalibe yi gis ngeen ko sëriñ bi agsi na ci jàmm jëwriñ sëriñ Amdi Gueye ànd ak délégation bu mag teeru ko ànd ak sëriñ Massar jooduñu tiijaan yi muy lu rafet ñoom ñëpp ñu ñëw teeru sëriñ bi ànd ak son excellence Cheikh Gueye ambassadeur ñëw na sëriñ Bassirou jëf la porte parole yoonu Mouride Mbacke yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg sama am Seexul Xadim ba ñuy wàcc Gabon ak Lambarda gisul kenn ko teeru tey ñëpp teeru nan la tey ñëpp yëg na yëg na ñëw nga fi jërëjëf Mbacke dalal ak jàmm Mbacke Balla bi